ma delloowaat la 100000 100 000. Je neex na daw leen gaaw ngeen télécharger l'application application xbet avec 1xBet len leen si ni mu leen neexee. NCA assurance vie moulin leen di série le secret. man chef d'entreprise la NCA retraite prestige mo gën ci waxatuma lak. le contrat d'assurance groupe retraite complémentaire le CAREC.

ndax mooy tax nga am dencukaay sa giir dund te képp ko am fukki at ak juróom-ñett jàpp juróom fukki at ak juróom mën nga seet ba noppi ñu wutal la jumtukaay nga ciy gëstu say koppar te doo sonn muy application NCA Chapchap. bu ci bëggee am la leer woo ñu gaaw ci 33 889 60 20 wala 77 314 55 55 wala ngeen dugg ci suñu site internet www.ncaassurance.sn NCA dëgg-dëgg mooy xar kanamu banque ak assurance gi gën a yaay. Vous allez bien Ça va, c'est bien. Euh, maître la soxla s'il vous plaît. Maître, c'est de la part de Birame. oui maître. oui amna nous tout de Birame nee na de la d'accord ok. veuillez patienter à la salle. D'accord, merci beaucoup. loolu ci limon comme li ma la waxoon. def naa ci tuuti rek daa foorul damaa def lu yem rek. damaa bëggoon bu ma dem seeti sama yaay ndax boobu ba léegi xam nga dañuy déggante rek waaye xam nga xel mi du dal day defee damay nekk fii feebar ak di xalaat ak yooyu léegi nag ma bëggoon koo seeti suba mu ne naa la ko wax. Euh, maa ngi lay bu baax a baax. kontaan lol lol lol lol, lool ndax eh, di akay bi macha allah ah, ni nga yaroo eh, te mënoon la ci bañ a fekk def ni ñi nga xamante ni ñoo nekk fi nga nekk naan maa ngi lay sant di la gërëm daal bu baax a baax baax eh, di la encourager tamit ndax li ngay def yombul hmm? Hmm. xam nga olof dafa wax ni ku ñu fay sa bor nga mer bobu la nga leble dafa et j'ai été accueilli chez vous respectueusement donc je pense que le minimum que je peux faire c'est cela Ben, bi moy ñun au-delà de bureau buñ mëna tok a liñ fi ñëw mais ku ñëwoon aussi fekk le ce bureau yow tamit naw ci sa liggéey donc je fais que mon devoir nettement. amul dara lu mën a may nit di déglu. merci beaucoup félicitations ci li nga waaw boole ci tamit euh, li gën a tax ma ñëw euh, dama ñëw pour jéggalu la pour ndax euh, damay yéex xam li xew damaa yéexal xam li xew moo tax bi ma ko yëgee xam ni fa mu jëm kat jurul jàmm buñ ko seetaanee kaso la jëm ma ne xaaral ma ñëw ñu waxtaanee ko. mais boo ko doon def bu yàgg ba léegi. jote duñ ko am looy jëf tàggu sa jëkkër dafa nekk ci yoon ça fait partie de tes responsabilités mais jóg defal sa bopp rek lu nekk mën na ci ay léegi boobaa la responsabilité que j'ai man envers toi dafay mel ni lu oyof la ci man nii moom na nga ko continuer looy def waxtaan ceeg sa jëkkër bu je mën nga dem ma bayila ci jàmm ak salam nga dem mm-hmm. boy dem nak bu faté ñëw dëkk sa loxo ma ñaanal la nga dem ci jamm del ci ci jàmm ja waaw ah. man mm. yóbbaale kaas bi bu ko defee nga jéem a set doon ñu limon foofu doon li wàcc limon bi kon non doy ah limon acide la Dá mais Também são. Da Gomes. Mamá Sensei, mamá Beli, mamá Lala, mamá Lala. Mamá! É, mas não é nada. É, mas tudo. Ya? Kan. maju kan belum Meli Meli sama di lima lebaran banyak kan maju kan ya. mau konsen maju lima juga maju maju mama rotasio mau ambak eh oh ada Wah, bisa aja, pernah lagi, Wah, barki yonent bi dama laa na yàlla ah, seen sëy bi ndax du ma ko nangu sax nag sëyu ñaari pataat ci ah, kër gi du fi am xalaatuma ko sax ah, waaw waaye ñaari pataat ci biir kër gi xanaa dañuy eh, génn ñu di fi yow daal soo bëggee nga ñëw jël yóbbu mu sëyal la say dem yow dootoo reetaan eh, eh, lu ci sax yow lu ci sax. moo nii di la daaj ji ndey dem nañ dem bàyyi ma loolu. lu ci laa la wax. <laughs> eh de mu nekk dem. amu fi xorom. da ngay yow ngir yàlla ñëwul nga sëy si ah yow non day dem dama koy takk. kii mënul ñàkk sama vie la. eh maman na ma naa la. ah daa nga def comme noonu. boo ko defee dëkk bi toj. man man muy wax di dugg si ay ay ay biiram. ci ci la de.

su bopp fees yooyu yëpp ko tal mais buñ teelee lijjanti problème ba mu féetee boor ba ñoom ñaar ñëpp génn ku ne nekk sa jàmm yaram franchement dina gën a dal suñu xel et puis takk gën a mën a mën a mën a yomb. Hmm? yàlla baax na yàlla baax na en fait de toute façon je pense que actuellement la priorité c'est de faire de telle sorte que ñoom ñaar ñëpp kii ñu génne ko prison kii ñu éviter ko prison. Je pense que c'est la priorité. Le mariage, maintenant, après, on pourra en discuter, Inch'Allah. D'accord Inch'Allah. Inch'Allah. Euh, moi, je suis là, je suis trop Hein? Avec stress, je suis Qu'est-ce qu'il y a Devine. Stressé, Devin. devine. Sams. moom na kay. gaaw gaaw lan.

robe daal laa bëggoon sol. robe la waaye Moussa dafa ne woon ma so ma wóorul rouge. rouge yi lan non non non non tout noir. satin tout noir lay am déjà yow da nga jonkoma macha allah loo sol dafay dem ci tout bête. te sam te sam su couleur préférée kay mu wax la. noir la bandi la moom na nga xees teg ci noir am daawaale te léppam ci yow nag macha allah. waa nan laa war a mën a doxee xaaral. yi nii ok tuula bi dëgg la voilà waaw waay ma yow tamit sérieusement yaay kii possible xam nga moom dafa bëgg ku correct naturel lu nekk ci yow loolu non jarul répétition nii déjà tu es toute belle yow lo def da ngay dem naturel hein, rek. Rancard restaurant. <laughs> Rancard restaurant lu tu ci munti doon xool bul bul bul type bu rap rap soit naturel le maximum possible parce que moom genre yooyu rek moo ko mën a daane de loolu doo ngay faiblesse gis na jigen bu nek mais loolu bondiwu ko yow da naturel la soit posé sa wax nag bu mbari te mom buy wax déglu ko. bu baax nag moom loolu la bëgg boo ko defee rek am ko yaa ngi ci yaa ngi ci yoon bi lu si desete bariwul de fàtte naa laa kaa benn kaa mhm. mooy keroog dañ doon wax téléphone ma pare coupé ne ko damaa war a génn mun foo jëm ne ko ah damaa am rendez-vous dof loo nga sab lan ko nga xam ne dafa fiir ba man looloo tax ba lam réaction bi ma tiita non non non non doo génn kër gi parce que après ça dama la war a yónnee ah te yaa ngi Moussa war a yaay bandi yow laa wóolu toj nga fi ko ragal nag yii jaata ñeme de mais lu la wax yow daal soit soumise wax ndànk def ndànk dal ndànk moom loolu doo nga ko mën a

xam nga gis nga bari ay pexe jub moo ko gën te euh, entre quatre murs sa liberté ñu tënk ko sa lépp dépendre ci ñeneen dafa jar a bàyyi est-ce que xam nga xëy yor sa téléphone xëy dox yi xëy jëndi mburu jëndi leneen xëy dem football lan moo ko te am lu benn xëttuñu kon dama xalaat ni loolu yëpp boo ko amee benn période yoon xëñ la ko ngay tëdd heure bu la neex tey nga dem ba mënatoo tëdd heure bu la neex kon li la ko teg mais justice war na ko respecté te ñaan yàlla bañati fi dellu si incha allah fii ngeen nga ko d'accord li loolu baax na kon baax toute façon moom procédure bi une fois ñu lancé ko moom ni ça va se passer dans de bonnes mama. maman de génn na sànq la génn. Mama de xam ni jot na ma jóg ci moom. ni temps yëpp saa na na ma ñëw fekk ci te bu jëkkoon dama ko daan fekk mu ngi ci kay mu ngi ci livre yi wala mu nga dem révision waaye boobu léegi gisatuma ci dara loolu. maman ni mu mel yaa ko looloo tax nag looloo tax nag jot na ndax xam nga lu tax bala may jàkkaarloog suñu borom mu di ma laaj nan laa yore woon sama njaboot. yàlla na yéex waaye day am jot sa ragal wéyjur bu nekk umpale woon ni sàmm la bëgg sa doomit du tax nga topp ko ci li ko neex ba bu ëllëgee nga am daanu suñu borom jaralu ma ko te wax dëgg yàlla nag ki nga gën a bëgg ci yoon moom nga war a gën a jubbanti maman de nu mu mel yow la yaa yàq ba mu yàqu yaxeet. dana dëñ nag dana dana dëñ bu neexee yàlla loolu moom incha allah taxaw bis ni ki taxaw bu neexee yàlla waaw daanu suñu borom lay ragal. léegi nag bëgguma li may liggéey mu vingt que fi dootoo fi dellu si et que condition bi du ma ko négocier ak yow bu fi jógee ndaw si la indi fii na ko moytu bu baax baax ak benen jigéen bu la meuna dougal ci situation. fii mën naa génn rek kuy tudd âge sax wala ma la gis sax dootoo ma gis nii parce que fi li fi dund yëpp ça m'a appris beaucoup de choses dina moytu kenen sax ko dul dina moytu.

ndax jamono yi daal li may yëg ci sama yaram bi du coono du coono. Moustapha yow da ngaa néewal nit day sang yaramam léeg-léeg nga dem sang sa yaram ba mu set waaye suñu la waxee rek nga ni yàlla baax na ñun ay africain rek dañoo sangatu di seet di léeg xool sa yaram ba xam fan la toll ah melu la nga ni baax na mm, mm. waaye dama la bàyyi maa la jàpp sa loxo sama loxo sa tànk sama tànk ba teg. fa ñu sangu tomb sang ñu sang la ma nga set. Adja du ma la bàyyi bi man may sa bébé bu ñu yóbbu mu ñu sangu yi. comme na nga wo dem. ah man dal may setan dal nga japp ma ci loxo man. dima ma yow jàppatuma la ci loxo yóbbu la léegi yaa may jàpp ci déglu ma déglu ma rek man neena la taxaw na ci kay jublu sama yaram na ci jublu ta sax may dem sax duma andak yow. suma la baye do dem xamna la. da nga mën yalla xamna ni dina dem may dama dul andak yow xamul nga dama bëgg wéet ak ki nga xamanteni mom la amal affaire dafa lutax yow la bëgg liggéey. yow pour lenn kese nag. Ah. pour nga gën maa bëgg. <laughs> loolu rek. waaw <laughs> loolu kay bu delloo sax maa koy fay. Ah. yoo xam ne bëgg naa la pare naa la jox fukki junni. Eh, ñu dox ko ko. Eh, eh, xam sa xaalis xam nga sax bàyyi ma ma dem man kese parce que dafa am leneen lu nekkaat sama biir xel. bàyyi ma rek man ak kamay seqal ñu dem man kese. yow même boo wéeteeg moom soo ñëwee fii loo waxtaan ak moom rek ma ko wax man xam naa loolu. wóor na ma xam loolu leer na leer. baax na baax na baax na comme na la baax na. loolu leer na ma. loxo bi nekk sa ah ah du ma ko wax damay bàyyi ba def ko wax la ko. Ah, baax na. <laughs> Demba. saa yi tey moom hmm. oh, xam naa moom incha allah suba taxaw. Hmm. te su ma taxee suba moom am naa yaakaar ñu ma. parce que sama avocat na ma yàlla na ko motali amin amin amiin su motali am naa yaakaar su ma taxawee rek dinañ ma libéré. na ko yàlla motali waaw parce que gars yi daf daf trouvé nañ que ni man violé wu ok affaire bi na ko alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin macha allah yow ya, nag góorgóorlu. Mhm. nga muñ. Mhm. man su ma génnee lépp lu ma waxoon naa si jàpp. na wax sama sœur bi. incha allah man lépp lu mu ci mën sama képp laa kàttan naa ko def. incha allah film mu gën a gaawee. xam naa ne jàmbaar nga liggéeykat nga gëree nga. na nga afas jom. soo amatee problème ñu jox la xiifu jàmm loo xiif xiif bu ko laal. Mhm. dóoral li dóor nga dajee ko. incha allah que laal fee te amaloo ko remboursé dafay métti moo lay indil lii tey. Mhm. da nga góorgóorlu. bañ a laal ci alalu jàmbur. Mhm. liggéey jàmbur nga dóor ko livré ko à mu jeex. incha allah waaw man moom suba moom ñaanal ma rek suba moom xam naa na taxaw rek. yàlla baax na li ma la ci li ma la ci dooleel mooy hmm. nit ku nekk nit la mën a doon te gis naa bi ma ñëw fii ba léegi ni ma taxawoo hmm. damay jàppee ko bokk ak ndey ak bàyyi hmm. lépp lu ñu la indil yaa ngi koy partagé ak man mu doon affaire bu mu nice suba feenee ngay dem noonu yàlla nga am fan ndam ñu génne la génne bu seet wicc bañ laa toppee dara xam nga yàlla la yàlla defal jàmm defal ko mbooloom jullit nga gën nga gën a nga nga gën a avance ndax xam naa li ma lebal nii mënu la ko fay mënu ma la ko fay yalla la yalla taxaw ci lu bëré ah. bëré bëré bëré sam la sam mbolam julit ya, wa bo génnee nak nga ba ñoo fàtte ñaan parce que gis nga fi ni mu démé gën ñoo taxaw ak yoy non parce que moom ñaanal mako ko moom benn morom mu ñoo fi moom mhm. jàll boo fi kenn ñoo yalla na ñup parce que fi mom nam parce que dina la jàngal lu bëri di nga moy ci lu mais so fi génnee mo na nga wara soppé ko man mom jigen sa dot mu xool kon ko xam nga ko rek baana nañ lay ñaanal rek suba moom yàlla may la ndam nga génn si jàmm ak salaam ñu bañ la toppee dara yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad xam naa li ma lebal nii moom lebal nga ma loo xamante ni mënu ma la ko fay te yàlla baax na yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla fay ñu bokk lépp ñu bokk lépp incha allah ñu bokk lépp yàlla mottali lépp

سين بكل أهلول يلا رك ما يخمل لا لأن واحدة دائما نعى دوك سما كردن كو خم سما دوم لين جاب وينك سنتلي يلا ببخ تخمل ليه غيرك دنا جن إن شاء الله تكاتم يلا نخس برام كرمي في واسما برام كرمي في ما من خل متوغل ده هم هم هي لغلغ متانغ لغلغ مسرد sëñ bi yow. Hmm. xanaa dañ laa wax li may dund. déet wallaay mbiru suñu boroom rek. waaw ak it ma gis ko ci sa jëmm ji. li nga wax lépp nag dëgg la. Hmm. man sëñ bi li nga wax sama borom kër noonu xam nga lu ne ci bopp bi. Hmm. dafa am ndaw ndaw soo xamante ne nii da koo tooñoon yàgg na lool. tooñ saa bu ñëwee ci xel mi rek moo koy jaxase. Lolo waral léeg-léeg mu sedd leg leg mu tang ah mon kay li nga wax mom day hmm. tang da nakari deret man suma waxe ak mom benn baat sax. daf may engagé ba ma hmm. hmm. eh, tit suma xefe sax mu may ma baat. baal ma yam fofu señ bi bul yam fofu señ bi li nga wax yeb sama biir kër la nek di eggaleel ma rek. xam eh, lepp wax lepp ah. da baaxu tay lu teewu ta xam da yagul bul yàkkamti hmm. incha allah di nga xam lépp. yàlla ñu tasewaat. jërëjëf ci sarax yàlla na yàlla barkeel. yàlla baax na ba mu sotti ma ne ba mu sotti. Hmm. cum. ah non foo ñu def fuñ may neewale ba doola yaa fay jiitu ku doora man koy saaga yow da ngay doore boole ceg saaga yaa man gaañe danada iwaay danada da da da da da da da da da da léwal baa ngi uyaay oh, eh. non non non ñamal ñamal dona merci beaucoup hmm. warga sin bi la naanal warga sin eh, bi la naanal foo nga ñam barki yàlla warga sin bi la naanal Moussa ataab day yàq suñu reer baal bañ dem ba waa day yàq seen reer. Moussa Laporte. Laporte ah Sam. Sam jël nga mel ni bees de. maître neex na neex bi da nga galant galanterie yi yaa ngi maître am tey loxo maître dañu ko baax koy dégg wala yàlla bëgg naa la bàyyi koy bul Evet re. Sot len do. Magi, magi, magi, magi, magi.

parce que lii bëgguma mu dominer ma. ni sondeel yi leere yal na ko yàlla leeral samay gët ngir ma daje soxna soosu nga xam ni dama ko tooñoon ngir mën ko balu Xadija Xadija sama ndey هاي دخل الله وياي رجع لن لا رجع يلا يا لن لا فينا تد مو مني وحدك من لن لن لن لو لن لو لو لن لو لو لن لو Hein. <laughs> Merci. Elle est très belle. C'est la famille et mon père dans tout ça. Mais Merci. li def pour tellement. T'as vu. en fait des fois nouveau statut daf ñuy tooñ temps. pourquoi Un juge avocat genre C'est c'est un statut d'être le lu d'une commande. Mais Linga Daguni, mm. ah non, est-ce que tu te souviens d'une nouvelle danse quand on était tout petit là Bon, je sais que c'est le rôle où Khalé. Tu sais que fait Ban fecc la. Bi lépp sarax doon noonu <laughs> C'est une bonne danse. T'es bon. <laughs>

et je vais te dire une autre chose nga bàyyi ci xel. yow rek laay dégg. ñaanatuma doon góor googu nga xamante ni looloo la neex ci moom ngay mbëlele di rëy làmmiñ chaque jour nga ni ko li ma neex ci yow neex ma ci góor mooy nga tëdd. ma tëdd sa wet nga jël sa bopp teg sa dënn parce que ki nga koy wax il est à la prison et il n'a que moi comme interlocuteur nga xam ko te à partir d'aujourd'hui sama kër bu fi tégué ci sa tank à cette heure sans pour autant nga woma est ce que dégg ma wax as ñaari golo jur ñu yakkan di nga jur ñettal len mais danga maa bett torop Et na nga sigil sa ndey bés as li nga def xam nga ko yow as nan nga mën joxe sa bopp xëy joxe sa bopp prison papa Bal papa je regrette énormément Bal ma Gina, assurance vie Moulin Donmai, sainte le secret offal bu neex laa leen di indil pour yéen ñi di jouer 1xbet mën ngeen utiliser sama code promo WALF da ngeen koy bind A majuscule ngeen dem si sama commentaire yi am na lien bu ngeen fay fekk ngeen bës ko télécharger d'abord l'application 1xbet ensuite ngeen def dépôt pour mën a am bonus ba 156 000 ndaxuma leen de te li ci gën a neex mooy soo dugalee xaalis ak nu mu mënti toll dama la koy rembourser c'est-à-dire soo dugaloon 50 000 tey dama lay delloo 50 000 nga dugal 100 000 وما دير له واد 100000 خلينا نكون لو نعنا داول نقاو انت تيليشارج لابليكاسيون ونكسبت افيك ونكسبت قليل خالص نمول النخي